ba ñu koy yóbbu it sëriñ bi mi ngi ànd ak mbooloo mi ko doon yóbbu bokk ci ñi koy gunge di dox ak ñaari tànkam yii saa dina am ku war ba jege ko sàkku ci moom ni ko te ngaa war waaye sëriñ bi day wax ni dox ak sama tànk moo ma gënal bañ demee ba ca barab ya sëriñ Tayba Mouhamad Ndumbe Maar Sill moo ñëw jullee ko ko jullee bañ denc ko ba noppi sëriñ tay ba daldi jox ndigal mbooloo mi ñu daje ak déglu ak dal nañu daje te dal te déglu ñu defe ko ni mu ko waxe mu daldi di jóg daal di xutba daal daldi jaal sëriñ bi jaale ko ñépp daal di tudd sëriñ bi ne ana du Bamba sëriñ bi wuyu daal di jóg booba ma nga ca catul mbooloo ma mu ni ko jegeel sëñ bi jege tuuti ba man koo gis di ko dégg ba bu waxee mu man koo tontu te du yëkkati kàddoom ci kaw ba mu ko nee jegeel mu ni ko la tax mu taxaw foofu mooy bañ a jéggat mbooloo mi ay teggin teggin yooyu it ba tey mat a bàyyi xel bañ a jéggat mbooloo mi ba mu ko nee jegeel mu ni ko maa ngi dégg li ngay wax mu jagleel ko njaalum boppam daan ni ko li ma bëgg ci yow nag mooy nga ànd ak man ñu dem ca buur ba te mooy Samba bi nu jaal ko càmmale bi wala Lat Joor ñu dem ci buur bi yaakaar na Lat Joor reenu dem ci Lat Joor jaale ko jaale ko ko ndax ginnaaw xaritam la woon di woon ab sëriñam doonoon conseil technique am mooy mu daan diisoo moom bu defee it ñu mën a wax ak moom ci yow ngir mu samp la fam sampoon sabaay baay bu boobaa léegi البحر كله ده هسدن تيبوم لكل دار مو يسمى خلاص يوم لو يسا خلاص نينا سرين بتون تكوني كوا لينغا وقت نين جم جالي جي كودي ak denk ko lolu mom bax na yalla nañ ci yalla fay aw waye nak euh man de dem ci bour mom dem sama ngir lolu mom dama ko baaxawut amu dara lumay sakku ci kenn yit ko dul yalla nee mborom mépp ni terim ñenn ñi ñee ko lool ci dëggu gim dëggu diggante ma boromam waaye ñenn ñi ne kii daa def daa dese ci xew-xew boobu ci la waxee ñaari xasida yi benn bi mooy qaalu safihun li sarfi an humu basari wa ragbati an zawil isyaani fil bashari muy nee nañu dama dese ngir soppi gu ma soppi sama gis won leen ginnaaw ak bañ guma bañ mooy kat yàlla yi ci mbindeef yépp xaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari mu ngi dañoo waxan damaa dese ngir bëgg gu bëgg sama borom te duma fab sama lorit di ko jàmbat mbindeef xaalu safihun li kaw nii lam axaf ahadan dañoo wax ne damaa dese ngir li ma ragalut kenn wa ma rajawtu siwa rahmaani lil xadr te yaakaaruma kenn kudul yàlla mi aji yërëme ji te yor dogal xaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an il kawni fii safiyo fii kadri danañ damaa dese ngir joyal gu ma jore joyal sama mbir jox ko suñ borom wan gannaaw mbindee fii ci jamono buy sell muy buy neex wa fii kadadi ak ci jamono buy naxte mooy buy naqari beneen way bi ci des mooy way bi àggul nag dem na ba ni in safahu niya fi wirdin axastu bihi li cheikhi siidiya cheikhi al badwi wal xadari fala akunu rashidan misla rushdihimu fa sawfa yamtaazu yowman anzamu siyam wax ne mu nga xam ne fekkee dañoo wax ne moom mi nga xam mooy sëriñu mm, taax yi di sëriñu kaw seen xeetu njubin woowu ñu jàpp mooy ak njub dama ko jub te bisa ngi ñëw ca kanam boo xam ne eh, doxin yi gën a jub yi gën a màgg dana leer ñëpp bayit yi ci des mooy fi mu waxee ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaaisa tugni kullama xiini fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra al ilmi mun ñu ngi may wax ne ma jàng jëm ci bunti buur yi kon da am ay may yu kawe yoo xam dana la doy waxtu wu ne waaye ma ni leen sama borom doy na ma te doyloo naa ko te man di gërëm lu ma lenn lu dul xam-xam ak diine wax na ne an naa ufawwidu ahwaali liman hajasu wax ne in kuntu da watarin aw kuntu da xasanin daawtu dal ayni qabla rai wa siini mooy su ma amee aajo mbaa ma am njàqare yàlla lay woo fa huwa alladi fa huwa almuciinu alladi laa shay'a yucjisuhu wa huwa almukawinu maa shaa aya takwiini mooy aji dimbale ji nga xam ne dara tala dara lotuloo ko te mooy ki nga xam ni lu mu bëgg a sosit dana ko sos mu nekk na ko bëgge wax na bañ leen an ne ufawidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajisal masakin nan laay fabe samay mbir di ko joyal ci ñoo xam ni seen mbiri bopp sax tëna leen xanaa dafay def loolu sëriñ bi ginnaaw bu mamaro antisali làqoo des na ci digal loolu mu ko digaloon atakus lëf ñi ko topp ñëpp booba dañ doon sàkku xam-xam rek moom itam mu doon jàngalekat bu set wecc jàngalekatu kese waaye loolu lépp nag mi ngi ànd rek di yër xam-xami niti tasawuf amuk cofeel lool ci futtiku woon gannaaw adduna ak beru am cofeel lool ci siyaaxa te mooy dox wër nit yàlla yi na ko suuf yu jëkk yi daan def Isa daana xeet xeetal ci seeni waxin léeg-léeg mu wax loo xam ni day junj rek ngir mi mu bëgg a junj topp alluwa ba mu ne alxuraan day nga jàng ko ba mën ko bind doo gis lu am solo la waaye nag fexe ba bu ma la ala déedéet déedéet nga dégg ko di moom itam lu am solo la da leen di junju tasawuf noonu la doxee ñoom ab cib junju ba ba itte ji ba not ko nag ba mënatu ko nëbb fuur duusu daal ba tuuru des ci nag mu daal di taxaw nag daal di la la ne woon teg mu yëngal ko daal di woote wax mbiram bu leer moom woote it am nañu ko topp aji ci moom nangoo tarbiyewu waaye ñi ci des it ba mu wootee euh, woote boo xam ne ba tey forcé wut waaye waxin la woo xam ne am na ñu ko leeral leeral na ko leeral na lim bëgg am ñu ko topp nangu koo wu am ñoo xam ni dañ faa des rek ngir jàng waaye ba jamono boobu it mi ngi jihaat ak bakkanam jihaat ju tar jihaat ngir di séentu ay maqaama yu ci war a amee waaye suñu borom moo ko ko ilham bëggloo ko ko saxa ko ci ab xolam wirdu xaadir bi nga ko jële woon ci way juram Maamor Anta Sali ba mu demee dama dema dem ba duusu nag ba tuur bu mënut a ñàkk nag mu leeral lam bëgg nag daal di woote jam dajale mboolem ña fa nekkoon ci ay jàngkat daal di jóg waxtaa wax ak ñoom ak dogu gam dogu nag li leen nag léegi li ma bëgg ngeen xam ko daal mooy képp ku àndoon ak ñun ngir xamlu na seeti fu mu xamloo ji na dem seeti ku ko jàngal ku àndoon ak ñun ngirum njàng képp demal seeti ku la jàngal nasihat fu la neex nga dem fa koo xam nag dafa bëgg li nu bëgg na dox sunu doxin ta taxaw ci sunu mbir suñuy su suñuy suñuy digleeg suñuy tere mooy nañu topp si man te diglu ma te wàccandiku foofu nag ñu daal di baj baji baj baj ju taratar ñenn ñi daal di ni kon ñun ñoo ngi dem ñenn ñi des fi am ñoo xam ne dañuy tere seenub xarit dem naan leen déet bu leen dem ëpp naa def ñenn ña di tere seeni xarit toog naan leen fii bu ngeen fi toogee jëmu leen fenn waaye werante ya bu muy bari lépp it sëñ baa ngi ni teg mi ngi noppi ni waxu dara eh, dogu yit ci lim dogu dengi dengi wu ci ba mbir ma fa mujj mooy ñu bari dañoo dem ñu néew des fa bi mu demee nag ba ñii dëppoog moom dëppoog moom ci ñi nangoo ànd moom ci lim nekk mu daldi di yéeg ak ñoom nag jàll bàyyi xaalu jàngale jam dem ci xaalu tarbiya ak tarqiya sëñ Mad Lamin nee na am na ci sa ci kilifa yi ku ko wax ku kum doyloo ku ko wax ni ko sëriñ bi nee na ko yonente bi ci boppam moom waqanteeg moom ni ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars ni ko yonte bi mu waqanteeg moom ni ko yaral sa àndandoo yi ci itte te bu leen yar ci am njàng gis yonente bi ak wax ak bi ak jële ci yonente bi dana ñëw ci kanam tuuti ak li ci boroom xam-xam yi wax ak nattablekat ya la ñu fay nattable waaye نتوير رك إن شاء الله لي كو سرين بينات لي سرين مدلمنا لي لم لير تاعي خشدام مي ابن عبد الله صلى عليه بسلام الله باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل ولي سنته وصانها عن بداعي tabo xadimahu bi fasdai waaw loolu Sëriñ Tuubaa moo ni bokk na ci kiimaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ni moo leeral suuf si ci wàllu ba bis penc di taxaw yëpp kenn ku ne féetewoo sunna su yonente bi di ko ñoŋal ci ay biddaa bokk na ci kiimaani yonente boobu bégal gum bégal kii koy liggéeyal ni ko fasda fasda bima tu'mar amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman mun yooyu sallallahu alayhi wa digal na ko mu xamal murid yi ak ku nangu ak laabire ci moom ci fasda nag lii maanaam mooy yàlla dafa digal yonante bi mu leeral woote ba mu woote ca màkk te di ko woote ci suuf daf ko digal mu woote ko ca kaw bu dee ci àq Sëriñ Tuubaa fas daq jooji dañ koo digal mu woo nit ñi ñu wéeru ci moom ak jële ci moom yoon wi nga xam ne moom la ko suñu borom baaxee yenk ka ko mu di ci jubbanti nit ñi di leen ci gindi di leen woon yoon woo xam ne yiwu àdduna ak alaaxira mën na caa génne noonu la sëriñ bi sooboo ànd ak ñi ko topp di leen tarbiya jaarale leen ci yoonu tàggatu ci sikar ak dëddu àdduna ak liggéeyal nit ñu baax ñépp nag ak liggéeyal mbooleem jullit yi liggéeyal goo xam ne liggéey lëngoo lay doon ak liggéeyal leen ci isaar mooy gënal gënal leen ci sa jëme bopp moo tax ab murit foo ko fekk bu murit ga dëggoo ci moom xol ba day set wecc dara du ci nekk lu dul yàlla te kum gis ku ne day jàpp ne kookee ku gën ku ne da xool yàlla ci sama loolu bu ko ñëpp dundoon jàmm ju daj kapp lay doon ci àdduna moo tax bi mu sooboo loolu ñee nga xam ni xamoon nañu as lëf ci xam-xami tasawuf ak meloy tasawuf dañ leen doon xool xool yéenu yéem ak respect waaye lenn ci borom xam-xam yi di leen woyafal di wax na ñun wenn yoon wu jëm ci yàlla wudul li ñu nekk xamuñ ko muy jàng ak jàngale waaye fekk na euh, lu xar ci la nekk ca suufu jàng ak jàngale te mooy jikko fexe ba jikko rafet